coow loolee moo ngi bàyyeekoo ci benn émission bi nga xam ne ne kiñ dippee Cheikh Bara Ndiaye amaloon na fa ay chronique te si mel mu daal di xamal Sénégal yi que ne kiñ dippee Antoine Félix Diome di ancien ministre de l'intérieur ci réew mii di Sénégal ak kiñ dippee Farba Ngom di député maire ca commune bañ dippee añam waaye tamit kiñ dippee Thérèse Faye di ancien ministre de la famille ci réew mii di Sénégal ne ñetti ñooñee ñëpp ginnaaw ba nekkee ci régime kii président Macky Sall luubal alal bu sénégalais yëpp bokk lañ fi nekkee woon si li ni mel kii di Cheikh Bara Ndiaye ne en 2012 ba kii président Macky Sall di jot bopp réew mi kiñ dippee Antoine Félix Diome di ancien ministre de l'intérieur ci réew mii di Sénégal ne kookee ci kër bu mu dëkkoon dañ ko ko abaloon waaye ne kookee di Antoine Félix Diome ginnaaw bu ko kii président Macky Sall tegee ci bopp lu luñ dippee kere yi ngir mu daldi traqué ki ñu dippee Karim Wade ne ci saa si la kookee di Antoine Félix Diome daldi dem jënd benn kër ci VDN bi ñu ne déetawaay mu daldi jëndaat ñaari kër yuy jar bu nekk cent millions de francs CFA ci cité Makiyu fay bu nekk ci Mamel ñu ne déetawaay kookee daldi tabax benn hôtel biir Mbour ñu ne déetawaay kookee di Antoine Félix Diome ba tey daldi tabax ab immeuble biir Touba waaye tamit kookee daal tabax benn kër biir Xombol ginnaaw li kii di Cheikh Bara Ndiaye daal di wéyal ne kéwélu Macky Sall bii di Farba Ngom kookee moom presque daal dinay jaay kër yëpp yu nekkoon ci réew mii di Sénégal te kër yu mu fi jaay yëpp ci ay njuuj njaaj la amal ba daal di jaay kër yooyee waaye tamit kii di Cheikh Bara foofee ndax tamit ne kii di Thérèse Faye nekkoon fii ministre de la famille ci régime kii président Macky Sall ne kookee tamit akum luubal gu métti la nekkee woon ci réew mi di Sénégal bu fi kii président Macky Sall di nekk président. ginnaaw ba kookee di Cheikh Bara Ndiaye jëbalee kàddu yooyee nag kiñ ñu dippee Thérèse Faye nekkoon fi ancien ministre de la famille ci régime kii président Macky Sall kookee daal dinay amal ab poste daal di tontu kii di Cheikh Bara Ndiaye kookee di Thérèse Faye ne kii di Cheikh Bara Ndiaye suba ba ngoon di sos. di yàq deru nit ñi ndax ne moom poste yuñ ko fi mus a jébbal yëpp ci régime kii président Macky Sall ne musu see amal benn luubal ne ak dignité na doon yoree poste yooyee nee nag ci mbir moomee du ko bàyyi mu daal di jàll ndax dina porter plainte kii di Cheikh Bara Ndiaye daal di koy yóbbu ci kanamu yoon ngir ñu daal di leen di àtte si li ni ne ci mbir moomee nag kii di maître El Diouf lay jël ngir kookee daal di koy défendre ñu daal di toppee kii di Cheikh Bara Ndiaye liñ dippee diffamation maanaam ki nga xam ne ne dafa daal di gàkkal deram ci réew mi di Sénégal te li ni ba mu koy amal la de manière publique la ko daal di amal. ginnaaw li ni mel kiñ dippee Ouleymaane di ab chroniqueur ginnaaw bañ jëlee ay daan daal di koy teg ci ndodd kiñ dippee Cheikh Yérim Seck ginnaaw bam sosolee woon fii kiñ dippee capitaine Touré kii di maane yëkkati woon na ay kàddu daal di àddu. jëmale ko ci li ni mel kii di maane ne livre boobee kii di seex Cheikh Yérim Seck woon peewoon Macky sàll face à l'histoire mën nañoo changé titre bi daal di koy dippee nar yi maanaam fenn yi ndax ne lu leer ba am moom mooy que ne ci livre boobee lu si kii di Cheikh Yérim Seck sos yëpp bu fekkoon ne képp kum sosal kookee da ko daal di porter plainte daal di koy topp ci yoon pour diffamation ne lu leer ba am moom mooy que ne kon buñ paree ci kii di Cheikh Yérim Seck dërëm dootu ko desee ndax bu fayee ñooñee ñëpp day daal di dem ruine maanaam day jeexal xaalis tàkk ne kii di Cheikh Yérim Seck buñ ko tegee ci yoon rek war a tuta daal di jibalati kàddoom ci pénc mi ndax ne kookee ndax ne kookee lu tax ñu war a jàpp ab journaliste loolee la daal di ñàkk te moy liñ dippee crédibilité ndax né kookee di Cheikh yirim Seck ci livre am boobee daf di sos sos ba melni ab acteuru film boy amal trikaas ndax ne kookee di Cheikh yirim Seck daal dina fay nettali ko ne ki président Ousmane Sonko dañ ko fekkoon mom ak benn jigéen ci biir auto té né histoire boobee en réalité mo ngi au ci réewu Sénégal ci régime ki di président Abdoulaye Wade donc ne kookee di Cheikh Yérim Seck ci livre am boobee lu mu fa sosul rek da ko daal di fàtte ne kii di Cheikh Yérim Seck nag moom mooy journaliste yooyee nga xam ne ne ba kii président Macky Sall nekkee président ci réew mii di Sénégal ba mu duggee pale ba mu fay génn dafa bàyyi liñ dippee dignitéem ndax ne kii di Cheikh Yérim Seck avant kii di président Macky Sall di doo ñëw ci bopp réew mi bokkoon na ci journaliste yi nga xam ne ne dañ leen doon déglu bu baax te tamit dañ leen doon bàyyi xel ci réew mii di senegal waaye ne léegi képp ku jibal ay kàddu Cheikh Yérim Seck sax nit ñi dañ lay bëgg a tufli donc ne kookee di Cheikh Yérim Seck moom moo yey ba kii di président Bassirou Diomaye fay jëlee boppu réew mi mu daal di daw ndànk dem Europe daal di fay toog te ne moom bu nekkoon kii di Cheikh Yérim Seck foofu lay toog daal di fay dëju bañatee jibal benn kàddu ci pénc mi ginnaaw li ni mel kuréel gi ñu dippee conseil pour l'observation des règles de l'éthique et de la déontologie dans les médias ci réew mi di Sénégal di kuréel gi nga xam ne ne lu ko tax a jóg moom mooy mu daal di fexe ba kullu journaliste buy yéewoo ci réewu Sénégal di sàmmanteeg règle yi nga xam ne ne dañ koo teg ci journalisme ngir journaliste boobee bu jotee ay information mu daal di nekk ku indépendant daal di koy divulguer sans mu modifier ko kuréel googee nag ñu daal di dippee conseil pour l'observation des règles de l'éthique et de la déontologie ginnaaw ba journaliste bii di uyoo ci turu ay Diop Fall yëkkatee ay kàddu daal di xamal sénégalais yi que ne da doon ak ay yelwaan yu nekkoon ci régime kii di président Macky Sall ngir ñooñee daal di koy may xaalis kuréel googe daal di nay fësal ab communiqué daal di artu waaye tamit daal di tëkku kiñ dippee ay Diop Fall si communiqué boobee ñooñee ne lu kii di ay Diop Fall amal du lenn lu dut jëfinu ab journaliste bi nga xam ne ne day amal ay relation moom ak ay autorité ngir ñooñee di ko mën a corrompre ba bu amee ay information yi nga xam ne ne da ko war a fësal ci ñoom kookee daal di leen koy nëbbal ñoom ne jëfi ni ñu mel règle journalisme da koy daal di tere donc ñoom ne kii di ay Diop Fall bis bu amalatee li ni mel dinañ jël ay daan diis daal di koy teg ci ndoddam ndax loole règle journalisme mayu ko benn journaliste mu daal di koy amal. lii lañ leen indiloon loon comme actualité ñoo ngi leen di jox dig daje ci yeneen i mbir incha allah.